am na accident bu metti bu am fii ci euh, département de Podor ma xëy ànd ak le ministre bi nga xam ni moo amee développement communautaire équité sociale et territoriale mi Samba Ndiobène Ka fekk si le gouverneur de la région de Saint-Louis mu ànd ak effectivement les autorités administratives pour ñëw fii sur place maanaam gis maanaam méttitu accident bi gis nañu oto yi nu mu mel euh, metti na euh, fukki maanaam doomu aadama ak ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan fanweer ak ñett manam blessé nañ ci mu nek lu metti mais buñu gissé ñu blessé ak ñi nga xam ñoo ci ñak seen bakkan daf mel na fukki manam doomu adama la ak juroom té auto yi seen capacité fanwer ak ñent la loolu moy la maanaam dafa surchargé loolu nak dafa poser problème parce que bo ñëwee fi ci accident bi tali bi baxna amna signalisation donc auto yi aussi am nañu visite technique donc lan moo indi accident bi ce qui est sûr moy ci luñu ñu gisagum te gisagum te rapport yi ko manam facteur humain manam peut-être ci nit ki la ñoon dawal kenn ki nelaw la fekk moromam indi musse bi bu tol ni di nak bu amé euh waxon nañ ko dañ koy waxat il faut que ñu xol ak acteur yi yeen juntu yaay lañu mëna jël pour que yu melni baña amati en tout cas mu wañéku lu baax baax mu wañéku wañéku baax baax to ci lolu man damay woti acteur yi nañu waxtaan set lu ñu mën def en terme de sensibilisation mais aussi en yenen jël ay yenen juntu parce que xeyna chauffeur yi dañuy daw goudi daw goudi gi yëpp bu ñëwee ba fayar dañuy dañuy sonu ko nit dong lañ duñu ay wala ay nit lañu donc dañuy sonu musibu melni am est ce que duñu xalatat waxtaanaat est ce que les véhicules transport est ce que dañuy daw man leena permettre ñu daw goudi gi yëpp ba fajar est ce que duñu xolat yooyu yëpp mais loolu nak ay waxtan la ak acteur parce que il faut ñu jël ay mesures code d'alerte bu bees bi loi bi jall na donc dañuy dana dana gëna alourdir yenn sanctions yi permis à point wax nañ ko bu soobee suñu borom fi léegi ay weer yu néew xëy na dana ñëw bu neex yàlla ñu ngi ciy liggéey mais loolu yëpp tant que waxtaanuñu ak acteurs yi pour jël ay mesures yoo xam ni yu dëgër këcc yu dissuadé yu tax ba nga xam ne nit ki bu duggee ci otoom di yëpp ay doomu aadama dana dana dana ci dana ci bàyyi xel bu baax a baax suñu toogul waxtaan ko yaakaar naa duñu am duñu du sotti te waxtaan boobu nag il faut am parce que état bi aussi dana jël responsabilité am pour mën a en tout teg mbir mi ci yoon de telle sorte que en tout cas waxuma accident am parce que kenn mënul wax accident du am mais mu wàññeeku bu baax a baax.